faslun li ab dog la te ci wax lay yi nga xam ne mooy dëgëral ne ku yàlla yónni ku ne dana melowoo yetti melo yi nga waxoon muy dëgg rekk lay wax te du def lu yàlla aaye tey dana jot li lañ ko jot loo ba mu mat ne lay wi nga xam ne mooy dëgëral ne yonante yi yàllaa leen yónni te lañu waxit ne ci yàlla la bawoo ci dëgg-dëgg ci yàlla la bawoo nga xam ne kon ñoom ay ndaw lañu te it lañu jot li lépp lépp lépp dëgg la la yoo koy dëgëral mooy bu fekkoon ne da nga ne ab yonante wax na lu bokkut ak la am day mel ne kon da nga ne yàlla suñ borom ci boppam moo wax lu amut ndax yàlla mi leen yónni moo leen di may ay kiimtaan yoo xam ne mooy tax ñu gëm leen kiimtaan ya day wecci yàlla waxan ne kooku day sama jaama maa ko yónni lu mu wax maa ko ko waxloo lu mu jëf maa ko ko jëfloo topp leen ci moom yonente bu ne kiimtaan ya ko yàlla yi may ba tax ñu gëm ko noonu lay demee mooy day wecci yàlla ne woon kooku sama ndawa ci man la bawoo topp leen ko ci lépp lu mu wax ak lépp lu mu jëf loolu nag kon ci la ñuy xame ne ab yonente moom dëgg rek lay wax waaye jomb na safaanub dëgg muy aw fen di bàyyi ko ci ku yàlla yónni dalay xamal moo aji sa mu ne moo aji sa bi ñuy firee kiimtaan day nekk mbir mu xotti baax moo xam ne kenn mës sa gis lu mel noona di am ab yonante sàkku ci boroomam yàlla daal di ko koy defal ndax ñu xam ne moom moo ko yónni faaw nag day doon loo xam ne duñ fa gis dara luñ koy mën a gam-gam leel te it la muy doon doon kiimtaan na doon la nga xam ne moom la yonante ba waxan ne ndax su ma ko defee ngeen gëm ma ñu ne ko waaw kiimtaan ga na bokk ak la mu waxan ne moom lay def waaye su ne woon naaxar géej gi ngeen di gis ngeen xam ne yàllaa ma yónni ñu ne ko waaw defal mu def nag leneen lu bokkut ak xar géej ga lu mu yéeme yéeme de su ko tuddee moo ji sa moom kay la waxan rek la def loola daa wax ne lu mu yéeme yéeme rek moom ndegam waa ji woote ab yonante féegalu ko de su ko tuddee moo ji sa mu misaale ko nag ku yàlla yi bëgg a yónni tàmbalee feeñal ci moom ay xar baax di ko wan ay xar baax di ko wan lu yéeme yéeme loolu de su ko tuddee moo ji sax ndax kooka tàmbalee gu te woote ak yonante loolu moom doonul lu may rek yàllaa koy waajal bëgg mu dëgër ba nga xam ne bis bu ko yónnee rek mu mën a yenn bu baax a baax la mu ko yónnee ba tey waliyu lu yàlla may ab yonante mi moo gis rek mën na koo may waliyu waaye nag da nga waliyu moom wóotiwul ak yonante la ko yàlla wan ak di ko jaarale ci moom ci ay xar baax dañ koy tuddee karaama waaye kenn du ko tuddee moo gisa tey misaale karaama ak waliyu nit ñenn ñi def jekki-jekki bari xam-xam lool te jànguñu ko di taalif ak wax xam-xam yéeme yoo xam ne jànguñu ko ak lu mel ne fekk gumba ñu wëlbati ko muy gis gis bu leer mel ni mës sa gumba wala wàllu yu jëmmam gi soppiku mel ni mel naa wala mel na jëmmam mi ngi fi te fekk na kat nekku fi ngay jàkkaarloog jëmm ji mel ni mi ngi toog te fekk na moom nekkul fii ma nga feneen ak nekki yàlla xamal leen mbiri nit ñi nekk yi jàkkaarloo kenn daal di xam ne moom mi kuñ bind ci texe la wala kuñ bind ci texee di la wala yeneen mbir yu làqoo làqu te yàllaa leen koy xamal xamalu yàlla googu mën naa am ci gannaaw bu ñu xalaatee waaye mën naa am itam mu jekki-jekki rek xamal leen te jaariwuñ sax ci xalaat boo gisee wàllu yi yàlla di leen may xeeti karamaat yooyu dafa bëgg la ñu nekk ci tàggat seen bakkan ak saxoo wërd ak saxoo farlu ci lu baax loolu la bëgg rek ñu gën caa yokkoo yokku gën caa jëma jëm kanam te ku leen gis xemem seen bi ba roy ca ñoom yett yi nee na wuute nañu al moo ajisatu al irhaasu al karaamatu yett yi li ñu wuutee bokk na ca moo ji sa moom li la ko waxee day doon loo xam ne kay woote ak yonante mooy sàkku yàlla defal ko ko yàlla it defal ko ko ngir ñu gëm ko xam ne moo ko yónni al irhaas ñu koy wax tën wala waajal yàllaay jekki-jekki defal ko ka muy bëgg a yónni ndax rek bu àggee ci mu yónni ko mu mën a taxaw taxawaay bu mat sëkk ca la mu ko yónni karaama it léeg-léeg wali yi sàkku ko léeg-léeg itam du ko sàkku yàlla mën naa jekki-jekki feeñal karaama ci wali yu mën naa itam nag wali yu wa sàkku karaama googee nag yàlla door ko koo defal nga xam ne kon karaama mën naa amee ci sàkku mën naa amee ci lu sàkku li tax moo ji sa balaa ñëw rek fekk kooka woote ak yonante mooy moo ji sa moom day seereel kay woote yonante wan ko ne ko li ngay woote kat dëgg la ba nit ñi xam ne la muy woote dëgg la kon nag balaa mën a ñëw rek fekk woote ga am ba noppi nag mu topp ca waaye bu ñëwee te fekk kooku wóotiwu ak yonante du mën a seere kon ak yonanteem ndax seere ci njëkk ak woote di am du am njariñ ne seere balaa baax ñu jooxe ko ci waxtu wañ ko sàkkoo waaye bu ñu jooxee seere sa njëkk waxtu wañ sàkkoo seere sa rek loola mën naa daldi yàq seere sa li tax ñu koy tuddee moo ji sa te moo ji sa di firi aji lottale lu kenn mënut mooy rek yonente ba ko yàlla may mu feeñe ca moom ndax ñu gëm ko moom rek moo koy man waaye keneen du ko man moom rek koy man foofa mais lépp lu yàlla may ab yonante muy moo aji sa lu mu rëy rëy yàlla mën na koo may waliyu muy karaama ndax wali yi ñoo wuutu yonante yi teyit ni yàlla yu musale ab yonante ba du jàdd def lu aay ba tey noonu lay sàmme waliyu moom it ba du jàdd def lu aay waaye nag am na ñu wuute yemlewuñu sàmm gu leen yàlla sàmm ci sori lu aay moom lay bëgg wax liñ la wax léegi ne ab yonante yàlla da koy musal ci jàdd aw yoon ci aw yoon rek lay aw wàll yu noonu daa wuute yonante mi nga xam ne moom yàlla daa wax ne fu yonante aw rek aw yoon la faaw yàllaa koy sàmm ba du jàdd mukk mukk mukk yoon wa ndax bu jàddee te yàllaa ne woon topp leen ci moom day mel ne kon moo jàddulu moom yàlla loolu mënta am wàll yu nag moom yàlla mën na koo baaxe ni ab yoonante mu bañ a jege dara luy nuru jàdd yoon waaye nag mën naa am itam ñenn ci wàllu yi yàlla nattoo leen jàdd aw yoon mbaa sax yàlla far leen sëlbu ñu far yàqule loolu lépp moom ngi tag ko ci coobare yàlla nga xam ne kenn ci wàllu yi mën naa nekk ca bopp ba ci ëllëg sa ci coobare yàlla mu nekk ca geen ba nii ñu ko teqalee nga xam ne mucc gi ci jàdd aw yoon ab yonante dana koy am wàllu dana koy am waaye nag taxul ñu bokkale ko dëgg-dëgg noonu ñu ko teqalee noonu la ko ci bi muxtaar teqalee muy gëstukat bu rëy rëy di ko baax a baax mu ñaan yàlla dolli ko ngërëm dolli wàllu ngërëm sax képp koo xam ne yaa ngi koy jéem a roy ci njubam nga ak mbaaxam nga am na bay bu ibnu buuna waxan dañ koo jubbantee ci wax yi kenn ci gaa yu baax yi te ràññi ko ci mbaax di ay waliyu am na ca koo xam ne nu waxee moo jubbanti wax yi ibnu buuna ja dane ab yonante moom bu xibaaree dangaa war a gëm la mu wax dogu ja waaye nag waliyu moom bu xibaaree te la mu wax leer la nga gëm ko bu fekkee nag lu waliyu wax leeru la la tëgal mooy nga ne man day xawma waxi waliyu ndax man nit kese laa te ñoom nag niti yàlla lañu kon ab yonante lu wax dañ ko war a dëggal dogu ja kenn sañu koo weranteeka sikki sàkkaaka weddi waliyu nag moom bu waxee duñ wax ne lu waliyu wax rekk ñu war koo gëm dogu ca dañuy wax ne su waliyu waxee te nga xam la mu wax ak na mu ko waxee gëm ko loola baax na su fekkee nag la mu wax xamoo ko du la wax ne la gëmal la mu wax waaye dañ lay wax ne la na nga ca maandu ndax ndegam moom nitu yàlla la fa muy waxee mën naa am yow sa tolluwaay ëggu fa mën ngaa bañ a dégg ay waxam kon nag bul weddi na nga ca maandu rekk ndegam xamoo ko ba mën koo dëggalal am na wàllu yoo xam ne sunu boroom moo leen jox ndigalul woote ñooña moom dañuy boole shariha ak xaqiqa duñu wàcc yoon wa ci zahir mbaa ci baatin am ci wàllu yoo xam ne nag amuñu ndigalul woote ñooña nag mën naa am ñu feeñal loo xam ne ci zahir mën naa nuru xëtt shariha loola nag ñoo seen boroom ñoo koy xam say boo rekk kuy nitu kese moom mu maandu ca dafa ñaan sunu boroom may nu leeru àdduna gu alaaxira may nu mujj ga gën a rafet ci daraja yonante bi ak darajay mboolem ñi nga xam ne ñoo ko topp mu ñaan nag ñoom ñëpp mu yonante bi ak ay mbokkam ak yu saxaabaam ak ñi nga xam ne ñooy jéem a aw fañ awan ñoom ñëpp dafa ñaan yàlla dolli leen teraanga ak jàmm te baril teraanga ak jàmm ja ñi limu li mu sàkk baree ak limu lam nar a sàkk te sàkk gu ko yooyu yaar bool boolee nañu baree yàlla na yàlla barile salaatu ak salaam ci yonante bi ak mboolem ña ko topp amaana mooy ka yàlla yónni sàmm kóolute gi yàlla gi bañ a def lu yàlla araamal bañ a def lu yàlla sib loolu da nga ne woon mënta ñàkk mu ne loolu day moom li lay xamal ni mënta ñàkk mooy yàlla moo leen yónni wax ne fu ñu aw rekk aw yoon la kon nag bu leen seetaanee ba ñu jàdd def lu araam mbaa ñu jàdd def lu ñu sib ba doomi aadama yi roy leen ca day mel ne kon yàlla moom moo araamal ba noppi mbaa mu sib ba noppi wëlbatiku ne topp leen leema araamal mbaa leema sib ndax ndegam moom moo ne samay ndaw lañu maa leen yónni lu ñu wax topp leen ca lu ñu jëf topp leen ca bu leen bàyyee nag ñu def lu araam mbaa lu ñu sibit ba ñu roy leen ca day mel ne kon moo araamal mbaa mu sib ba noppi wëlbatiku def lu la mu araamal mbaa lu mu sib loolu nag mënta am bi nga layalee amaana wax ne ku yàlla yónni du def lu araam du ko wax du def lu ñu sib du ko wax bi nga ko layalee rek dal ngay layal tabliix jottali ndax ñàkk jottali moom ak nëbb lay doon te nëbb lu araam la te nee nga ab yonante du def lu araam du ko wax te it day mel ne bu leen yàlla seetaanoon ba ñu nëbbu lam leen jot li loo day mel ne kon borom xam-xam itam dana am sañ-sañu nëbbu dara ci sharia ndax roy ca yonante ya nga dolli ca ne ka yàlla yónni bu ko wóoree ni bu ko yónnee ne ko jottalil du jottali kon du ko yónni kon daal ca dëgg-dëgg tabliix moom yomb naa layal dagam dégg nga rek layu amaana li ñuy xamal ne ku yàlla yónni lay dal niti kese yi mën na koo dal ndegam du xeetu manki mbaa xeetu lu tax ñu koy daw li ñuy xamal loolu moom ña jamononte woon ak yonante yi dañoo gisan yonante yi loola di leen dal niki suñu yonante bu baax bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ña jamononte woon ak moom gisan nañ ko mu daan tawat ak wér gisan nañ ko mu daa xiif ak mar di sonn ak noppalu di jihaad ci yoonu yàlla niñ ko waxe woon rek ku yàlla yónni moom day tax mu gën a mat mooy mu wàcc ba tolloog nit ñi di defee nañuy defee di waxee nañuy waxee bañ xam ne moom mi aw royteef la manees naa roy ci moom du malaaka du leneen ña jamononte woon ak ñoom ñoo ca teg seen bët di ko nettali buy ñëw di ko nettali buy ñëw ba mu agsi ci lu mu wóor ne nu moom niñ ko nettalee lu am am la ñi ko wax ñëpp mënuñoo maase ci wax lu amut ne ni yàlla jaarale yonante yi ci kaw suuf nga xam ne ñoo fi gën a mettile ay jaaruwaay ndax nee nañu àdduna ku gën a baax dala ci yonante yi topp ci wàllu yi mooy ëpp ay tiis ak i naqar mu ne nag nitu kese bu seetloo loolu te xam ne rek àdduna ci boppam la yàlla jàppewul dara dara ba nga xamee ne sax jëfu ko muy kërub pay alaaxira mooy kërub pay ga ba sax àdduna diisewul ne laafum yoo ak li laafum yoo di woyof woyof àdduna tolluwul noonu fa sunu boroom subhaana kon nag ku am xel bu seetloo jaar-jaar yonente yi day xam day xam ne àdduna la yàlla deful muy dara bu ko defoon muy dara it ndegam day jeex rek moom kon du daraati ndax lépp loo xam ne day mujj jeex rek amatut solo loolu mooy wàllu tiiseeg naqar yi daan dal yonente yi ci kaw suuf mu des nag wàllu dañ daan jëflantee ci kaw suuf ci nañu daan takki soxna ak nañu daan jaaye ak jënde ak xeeti jëflante yi ak nañu daa wane yoonu jaamu yàlla yooyu yëpp metti woon na waaye suñu boroom da caa bëgg a yokk rek seeni daraja ndax kenn ku ne kenn la nga awale ci yoonu yàlla ci mbooloo rek da nga am pay gu tol noona nga xam ne kon seen jaar-jaar ci kaw suuf ñoom yonante yi lépp rek njariñ la lépp rek xekk ma la bu yàlla yi wan doomi aadama yi ndax ñu mën cee jàppe bind bu ama am njariñ ba noppi itam mu fay ci yonante yu baax yooyu tuyaaba ya gën a màgg bu ëllëgee foofee ca alaxira kon nee na ku yeewu bu seetloo ni yonante yi jaare ci àdduna bu baax a baax day daal di xam ne àdduna yàllaa ko doxale noonu bu daal di yeewu bu baax ci mbirum àdduna ba dara du ko mën a fàbbi ba yàqal ko àllaaxiraam